ku ne xam na ne réew mi depuis toujours jafe-jafe yi fi nekk ñiy tuddoo diine comme ñuy tuddee ay sëriñ seeg affaire yooyu ñuy wax daanaka yëguñ ko ñu ñuy tuddee politiciens yi ñoom it daanaka yëguñ ko ñoom ñu ñoo ciy jëriñu moo xam mi foncier bi wàllu suuf si moo xam mi wàllu alal ji ñoom ñoo ciy jëriñu population bi ci diggante bi ñoom ñoo ciy sonn ñu ci bari nag xamuñ jàpp nañ ne ñii seeni njëriñ moo leen ñor ñoom te xamuñ ne ñii seen bopp leen ñor waaye doxalin wii nga xam ne moom lañ bëgg a doxee ñoom ñi nga xam ne ñoo ko bëgg a doxee kat rupture boobu ñuy woote nañ ci dëggal seen bopp te bu ñu ragal ku leen sikk moo xam lu mu mën a doon ci wàllu yoon ak lu mu mën a doon ndax réew yii képp ku ragal ku la sikk doo fi defar dara rawatina suñu réew mi ndax nit ñi mën nañoo sikkal nit mën nañoo sosal nit mën nañoo fexe di jaxase nit ak nit ñi waaye loolu ku nam ma defar dara te jëmmi yàlla tax yooyu doo ko ragal doo ko sóor ndax ñi koy def ñépp seeni intérêt bopp képp moo leen ñor moo tax nag ba loolu nga xam ne moom lañ wax ne moom la ñuy woote muy rupture boobu nañ ko jëmale fépp bu mu yem ci imaam yi rek bu mu yem ci làmb ji bu mu yem ci football beek ngénte yeeg ya ñuy wax noonu boole leen ci màggal yi nga xam ne amul limit kenn xamul nu mu toll boole leen ci gàmmu yi boole leen ci cant yi boole leen ci ziyaar yi xew-xew yooyu ñi ko gëm nañ ko dundal mbiru diine ci état bu mel nii di état laïque ñi ko gëm ñoo koy dundal ñi gëm màggal nañu dundal seeni màggal ñi gëm gàmmu ñoom nañu dundal seeni gàmmu ñu amub ziyaar nañ dundal seenub ziyaar ñi amub cant nañu dundal seeni cant suñu soxlaa sécurité nag état nga xam ne dafay nekkal ñëpp mu jox leen sécurité waaye état alal jamu daan jël di ko fa def na ko def ci lu amal njëriñ waa réew mi yépp état amul diine état amul diine individu yi ñoo am diine te kenn ku ci ne la nga gëm yow la concerné yow la état bi ñëpp la fi nekkal ki gëm ak ki gëmut ñëpp ci bokk yam ki gëm ak ki gëmut ñëpp ci bokk yam li état yor nag pour ki gëm ak ki gëmul la na jëm ci li nga xam ne moo amal njëriñ nit ñëpp moo xam ci wàllu dund gi moo xam ci wàllu dëkkuwaay ci wàllu njàng mi ci wàllu paj gi ak ci wàllu yoon yi li nga xam ne moo amal njëriñ waa réew mi jëm ci wàllu sécurité ak lépp loo xam ne mooy tax ba waa réew mi nekk ci jàmm li état yor na ko def ci loola ñi am seeni gëm-gëm nag bëgg di ca dox ñoom nañu dundal ñoom lañu gëm kon rupture bii ñuy woote nañ ci boole loolu rupture bii ñuy woote loolu mo loolu dañ ko ci boole xam ne benn ensemble la lépp loo xam ne ay ñenn ñenn nit ñoo ciy jëriñu loolu ña gëm loola nañu dundal loola li état yor mu koy def ngir nit ñépp lii nag mooy dëgg de nekkuñ fii ñu ne waa imaam ñu ne waa dëgg la imaam yi laaj suukaru koor loolu du yoon nangam waa dëgg la affaire mbër yi nangam nangam loolu dëgg la de waaye boole leen ci lii màggal yeeg gàmmu yeeg cant yeeg xeet yooyu yëpp ca la bokk su dee nag ñoo xam ne dañuy jàngale wala nangam.

mu nekk école yoo xam ne dañuy wax franco arabe mel ni langue la ñuy jàngale te fekk na ci biir dañ cay jàngale su nit loolu sax du rôlu état loolu du rôlu état te yii dafa war a leer ba nit ñi xam ko nga xam ne li nga xam ne li nit ñi di wax li ñëpp bokk ñëpp jot ci nañ fexe ba li ñëpp bokk ñëpp jot ci li ñëpp bokk ñëpp yem ci droit loolu mooy tax ba suñu réew yi mën a avancé te yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla dogal ngeen jiite xam leen ne loolu yéen seen responsabilité la nit ñi am na loo xam ne mosuñ ngeen cee yar nekkuñ ci woon gis nañ ne nag jamono bi jeunesse beeg yooyu yëpp yeewu ne ñooy commencé di yeewu ci loolu te bëgg nañ changement bi te ñoom kat seen bopp pare nañ pour accompagner leen ci lii kon yéen it dëggal leen seen bopp ci loolu nit ñi seen bopp ñoo bëgg changement ndax xam nañ ne ñi fi nekkoon ak ñañ daan àndal ci wàllu diine yooyu ci seen bopp lañ nekkoon ci seen bopp lañ mës a nekk dañoo bëgg nag léegi ñëpp bokk yem ci mbir yi kon fexe leen ba ñëpp bokk yem ci mbir yi te loolu su ngeen ragalee ku leen sikk du ngeen ko mës a def